bonsoir salaamaaleykum mbokku déglukatu réew mi FM dal leen ak jàmm seen émission sans filtre euh, muy jotaay ndaw ñi euh, fii ci réew mi FM lay amee euh, mercredi bu jot 15h jotee jàpp 16h tey ñu dalal Ibrahima Fall di président de l' association des maîtres nageurs et sauveteurs du Sénégal Modou Fall ma bàyyi la nga nuyoonteeg mbokku déglukat yi balaa ñuy jox kàddu gi gan maa ngi nuyoo ñi ñuy déglu ñëpp fu waaye mën a nekk góor ak jigéen mag ak ndaw muy suñu ay auditeurs ak auditrices yi. jiital nag euh, ñi nga xam ne ñooy xalifa généraux yi nekk ci réew mi yëpp ak waa jàngu bi euh, di nuyu tamit euh, suñu gan gi tey di nuyu suñu technicien bi di la nuyu yow Sylvie di wax ni heure bu mag bi doorati na tey la mercredi maanaam àllarba ci wolof ñetti waxtu ci bëccëg nañu fas yéene door émission bi jëm ak yéen ñeenti waxtu yéen ñi nga xam ne yéen ñuy topp ci bi réew mi ku ci bëgg a bokk ci émission bi mën nga woote ci 88 628 84 84 plus 1 mbaa nga def 88 628 85 85 plus 1 mbaa nga def 88 628 86 86 plus 1 yow mi nekk fële ca bitim réew te bëgg a ànd ak ñun ci téléphone bi mën nga wat ci loolu mooy euh, suñu euh, numéro yi nga xam ni moom la ñuy jotee ci biir émission bi kon Sylvie dama lay delloo kàddu gi nga dalal gan gi ñu dégg si. ci débat bi merci beaucoup merci Modou Fall comme ni ma leen ko waxee Ibrahima Fall lañ fi dalal Ibrahima Fall moo di président association des maîtres nageurs et sauveteurs du Sénégal liñ fi fas yéene waxtaanee rek euh, mooy nu ñuy def rek ba aar ndaw ñi nga xam ne jamono ji jamono tàngaay lañ nekk géej gi Ibrahima Fall ñi ngi am mbégte contenté dalal émission sans filtre ñu bàyyi la nga nuyoon teeg mbokku auditeurs yi. waaw jërëjëf Sylvie euh, maa ngi leen di nuyu bu baax euh, di rafetlu aussi euh, émission bi mais également di nuyu seen auditeurs yëpp. vraiment di nuyu sama naataango sama doomu baay Fall. donc di kontaan bu baax bu baax ci opportunité bi pour ñu mën a exprimer wu ci li nga xam ne moom mooy xew-xew jamono ji mm-hmm. te dal ci ndaw ñi sax. Mhm. je veux dire mhm. mooy cas de noyade yi. Mhm. voilà voilà foofu la ñuy tàmbalee bari na lool Ibrahima fal ñi nga xam ne lap nañ jamono ji ci géej gi donte sax école tëjagul ndax vacances lañ doon gis ni euh, ñi di lap mooy gën a bëri euh, nga defal ñu benn bilan rek dernièrement ñi nga xam ne ñoo lap ci géej gi. waaw euh, jërëjëf d'après bilan bi nga xam ne jot nañ ko defagul fu mu toll nii te école sax tëjagul daanaka comme ni nga ko waxee. Euh, am nañu trente neuf décès par noyade voilà maanaam euh, fanweer ak juróom-ñeent. Mhm. xale yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan. te booy xool tranche d'âge bi maanaam at yi ñu am euh, dix ans la ba dix neuf ans. maanaam ñi si am vingt ans ñaar lay war a doon. Mm-hmm. donc loolu mu doon lu doy waar te ñu ngi jaale aussi ñu ngi profité aussi di jaale seen njaboot yi. Mm-hmm. parce que loolu métti na trop. Mm-hmm. sa doom tàggu la ne yenn saa école laa jëm. après ñu mujj la ñëw wax ne la sa doom lab na. donc loolu lu doy waar la. voilà. Ibrahima Fall euh, bu ci mujj Malika woon bari na xale yi nga xam ne lab nañ foofu. Euh, yow nga yor kuréel maître nageur lan nga jàpp ni moo tax ba lab yi bëri jour boobu waaw lap nag dafa am euh, ay manquement yoo xam ne su amee rek ah, dina am par force voilà kenn mënu ko éviter voilà parce que euh, euh, xam nga lu ñuy oowee sécurisation de plage maanaam ñi nga xam ne ñoo war a yore karange géej gi moom mooy état état nag daf ko jëloon dénk ko collectivité territoriale yi muy nga xam ne maire yi mm-hmm. ñu ñuy oowee maire yi nga xam ne dañu am façade maritime maanaam ñi nga xam ne seeni commune dafa jàkkaarloo géej bi donc ñooñu ñoom ñoo war a gérer la sécurisation des plages waaye ñooñu dañoo am ay jafe-jafe jafe yi ñu am mooy euh, dañu wax ne bépp plage boo xam ne dafa nekk ci grande cote bi maanaam luy commen commencé yoof ba ba Saint-Louis mhm. plage yooyu dañ koy tere waaye nag jamono ju ñu koy tere euh, ci diggante euh, bi ñu jëlee mesure boobu ak léegi dafa am changement yu bari mhm. mooy nit ñi yokk nañu fréquentation de plages yokku na léegi nit ñi Euh, plage yi léegi soreetul kër yi léegi dañoo ñëw ba dëkk ak ak plage bi mhm. léegi nag phénomène yooyu yëpp lañ dajale moom moo tax cas de noyade di am ba pare buñ ne plage bi dañ ko tere normalement waruñu fa teg koy aar léegi nag collectivité territoriale yooyu yi nekk si si si plage yooyu donc loolu mooy seen problème parce que état même bu fekkente ne dafa dafa ne euh, plage yi dafa am ay ay danger ba tax ñu koy tere te léegi mu gis euh, population bi di fa dem normalement war na jël kaaraange teg ko fa. mais ba léegi ba fi may wax ak yow nii amul benn mesure boo xam ne autorité jël nañ ko pour plage yooyu nga xam ne moom moo amoon labi ñu teg fa kaaraange. ñun nag association des maîtres sauveteurs et surveillants de baignade nga xam ne ñun loolu la ñuy xeex affaire lab la ñuy xeex donc ñun ñu ngi leen di ñaax ci loolu. voilà pour que ñu jël kaaraange yóbbu ko. ci ci plage yooyu parce que tant loolu amul je pense que noyade dafay continuer di am. Mhm. waaw. Euh, euh, lan mooy tax ñu ne plage bi dañ ko tere ak plage bi war nañ fa mën a sangu. waaye vraiment question bu am solo ni noonu question boo boo xam ne la donc waxuma la euh, ñi ñuy déglu population bi rek mais autorités yi war nañ ko dégg. Mhm. parce que ñoom dañuy jaawale. Euh, dafa am dañoo ñoom dañu teg seen tànk ne ñaari plage rek la ñu euh, bon ñi moo am muy plage bu ñuy tere ak plage bu ñuy digle ñoom ñaari plage yooyu rek la ñu jàpp te ñetti sorte plage moo am. Mhm. plage boo xam ne. plage bu ñuy euh, digle. Mhm. mooy plage bi nga xam ne représentul benn danger. maanaam nit ki mën na fa wàcc ak euh, pompier bu ñëwee secours yi maanaam. Mhm. mën nañ fa wàcc amul du ñu am benn jafe mhm. soo demee ci wàllu ndox mi du am benn jafe parce que amul benn danger. te maîtres yi nageurs yi ñu ngi fa. plage boobu dañ ko war a autoriser maanaam dañ fa war a def drapeau bu verte léegi beneen bi ci topp mooy plage bu ñuy tere boo xam ne day am ay jafe-jafe yi euh, wàcc. wàcc si plage parce que yow sax euh, yow mi bëgg a sangu sax booy wàcc si plage bi sax da ngay am jafe-jafe parce que day am ay rocher maanaam ay xeer yu mag yooyu ñuul yooyu mhm. nga xam ne mën nga fa daanu sax am am am am am fa problème mhm. ba pare rocher fu mu nekk ci biir ndox bi dafa day am rocher mhm. léegi nag yooyu vagues yi mën nañ la ñëw buux ci rocher yi sa bopp toj nga perdre connaissance donc loolu plage boobu dañ ko war a Mhm. tere ak mhm. ak beneen plage boo xam dañ ko war a tere aussi bokk na ci mhm. plage yi nga xam dañ fay déverser ay eaux usées maanaam ndox yi nga xam te ne dañ koy jële ci kër yi di ko dugal ci égout yi mu mu ñu koy déverser si si plage yi parce que bu bu fekkee ne da nga fa nit ki mën na euh, dafay sangu mën na fa dañ ko war a tere dañ ko war a tere maa ngi ci tere yi toujours plage boobu tamit dañ ko war a tere parce que nit ki bu fay sangu mën na am ay jafe-jafe wér-gu-yaram yooyu plage war nañ ko mën a tere mhm. mais dafa am beneen ñetteelu plage boo xam ne moom la gars yi de see comprendre muy autorité yi mooy plage bi nga xam ne Yoff la commencé ba Saint-Louis euh, plage yi dafa accessible maanaam nit ñi mën nañ fa wàcc di euh, ci plage bi plage mooy suuf si léegi te du ñu am benn jafe-jafe léegi fi am jafe-jafe mooy ndox mi ndox mi nag ndox boo amee jafe-jafe ñi nga xam ne ñoom ñooy expert ñu may ñun ñun ñi nga xam ne ay techniciens lañ maintenant les yi ñoom mën nañu encadrer zone zone yi parce que toujours dafa am ay zone yoo xam ne dafay dafay du baax am na zone yoo xam ne day baax mhm. léegi nag tant que nit ñi ñu ngi fay dem li ci war li ci war a tegu mooy ñu encadre leen ñu délimiter zone de baignade yi mhm. maanaam damay joxe euh, exemple ci plage bu mel ni plage BCEAO bi nga xam ne mhm. fa lañ nekk plage boobu autorité dañoo dañoo mës a wax ne plage dañ koy tere parce que dafa ay danger waaw danger yu na danger yi maanaam dafa am ay courant des fois courant yoo xam ne ci ay côté lay nekk courant yi nag dafay déplacé wu ñun saa yu ñu xëyee dañuy xool rek euh, danger yi fan la nekk ñu bloqué ko léegi nag côté yi nga xam ne dafa am euh, maanaam banc de sable bi maanaam paas li ñuy wax paas si lébu yi lébu yi ñoom noonu lañ koy woowee mhm. léegi mooy fi nga xam ne mën nga dox ba ci biir te doo dugg si pax wala ak yu demee noonu ñun foofu la ñuy baliser bu ko defee ñu encadré euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy usagers yi ñuy sangu foofu ci jàmm ak salaam donc noonu la ñuy organiser ay ay zone de baignade loolu lu ñu def BCEAO suñ ko defee Malika suñ ko defee euh, Gàddaay ñu def ko euh, Malibu je pense que du am benn problème mais ba léegi ñun loolu ñuy demander autorité pour ñu mettre ko en place mm. ñu jàpp ne place boobu am na partout dans le monde foo mënti dem en Europe aux États-Unis un, un peu partout dans le monde plage yooyu moom moo fa nekk plage yi ndox mi day am ay jafe-jafe euh, mais mën nañ ko encadrer mën nañ maître nageur mën nañ fa nekk tant que plage mu ngi accessible aux populations et aux secours rek li ci des mooy nga mettre en place nga ni plage yu ñu interdite euh, dañ ko war a autoriser teg fa ay maître nageur no non pas autorisé totalement pas autorisé totalement parce que euh, boobu drapeau bu jaune moo fa nekk drapeau bu jaune moo fa nekk wala orange parce que dafa bokk ci classe classification plage yi ñett yi muy plage autorisée à la baignade plage interdite à la baignade wala plage boo xam ne baignade bi dafa dangereuse mais dañ koy surveiller dafa bokk ci. Hmm. drapeau bu jaune bi loolu lay signifié loolu lay signifié dafa bokk ci signification ak nu ñuy nu ñu critères yi nga xam ne moom mooy autoriser les plages. Hmm. voilà plage la bu représenter ay dangers ci ndox mi mais plage la boo xam ne aussi dañ ko surveiller loolu la ñoom nag loolu la ñu comprendre bu baax. Hmm. te may wax ne. même les plages yi nga xam te ne dañ ko autorisé à la baignade nga xam ne représenté wul benn danger ci ci plage bi ak ci ndox mi yëpp nit bu fay sangu te fekk fa ku koy aar day lam mooy wax bi plage boo xam ne amul benn danger mhm. représenté wul benn danger si comme si ndox bi boo fay sangu te fekkuloo maître nageur sauveteur da ngay lab loolu moo tax plage dañ ko war a aar mhm. voilà donc ñun ci loolu la ñuy insister à que ñoom ñu aar plage yooyu. Mhm. parce que plage yu ñu war a mën a encadrer la. parce que looy def euh, système booy def des années. Mhm. waa ay ati at léegi nga ciy gis ay accident léegi da war ngaa changer système boobu. yaa ngi wax plage interdit plage interdit te nit ñaa ngi fay dem. Mhm. voilà nga ne liñ ko interdit moo tax mënoo fa teg kaaraange léegi nañ changer nañ fa teg kaaraange ñu xool. voilà. Euh, Ibrahima bëri na tey plage yoo xam ne dañ ko tere. Mhm. Euh, privatiser ko ba mu cher euh, te du ñëpp a moyen yi te xale yi dañuy bëgg dem di sangu ci plage yi est-ce que du loolu sax moo tax ba jamono ji comme population bi dee gën di bëri gis nga nit ñaa ngi dëkk ci wetu géej yi est-ce que du loolu moo tax ba cas de yaa di ëpp tamit. voilà loolu tamit question bu am solo la parce que phénomène de plage li koy expliquer lu yomb la maanaam. fi ñu doon fi fii nga xam ne daan nga fa passer toute la journée ci vacances euh, nga fay football wala nga fay def leneen bi yeneen jeu yoo xam ne donc mën na la téye ba yow sa xel du nekk ci plage milieu yooyu yëpp amatul. Mm-hmm. kenn amatul sax terrain de football. parce que même boo terrain yi fi des yu privé yi boo fa demee da ngay fay pour mën a football loolu nag amu fi woon bu njëkk te léegi loolu moo indi phénomène fréquentation des plages. parce que léegi xale yi li ñu jël mooy suñu xëyee. bu ñu defulee dara li ñuy njëkk def moom mooy nañ dem plage dinañ fa mën a football dinañ fa mën a lekk lakk jën dinañ fa mën a def yeneen jeu ay ay volleyball ak yu demee noonu te duñu fay dara voilà parce que c'est des plages publiques aussi mm-hmm. léegi plage publique li ci li mooy kaaraange rek mais loolu moo indi phénomène fréquentation de plage parce que privatiser nañ lépp loo xam ne espace la woon bu jeune yi daan fowee léegi nag jeunes yi li ñuy obligé def mooy ñu rabat rabattre vers les plages te duñ leen laaj dara parce que duñ fa mën a dinañ fa mën a football fa mën a def activités yi fa jeunes yi def yëpp sans sax sangu yenn saa sax duñ sangu ndax activité am na activité yoo xam boo koy def au niveau des plages yow doo doo sax tal dugg si ndox. voilà mais il suffit nag nga fekk fa rek ay ménage ñu lay encadrer parce que encadrement boobu moom forcément il faut mu am parce que nit mën na ñëw ci plage nit kenn xamul la moo nekk ci xelam. parce que parfois nit mën na jógee këram mu ne damay dem féexlu ji plage léegi mu dem ba plage ah sama xel daal mu ngi ndox mi xaaral ma dem dugg léegi boo fa fekkulee ku koy aar dafay lab mën na mën na exposé à des cas à des euh, de mm-hmm. noyade. Mm-hmm. léegi nag loolu la ñuy wax ne autorités yi ñoom ñoo nekk si ginnaaw loolu yëpp maanaam fépp foo amatuñu tabaxuñu espace yoo xam ne jeunes yi mën nañ fa dem gratuitement di fa yendu. Mm-hmm. surtout au niveau de la banlieue nga xam ne. lépp da donc lépp da ngay fay. boo jëlee boo jëlee taxi nga war a dem Ngor. ah di nga fay boo moytul 4000 wala 5000 ak sa jaboot léegi fi nga war a toog. ci plage bi da ngay fay. te léegi dégg naa sa ngor da ngay fay cent pour pour accéder ci plage bi voilà léegi nag. ak ak li ngay ak li ngay lekk. Mhm. ak ah, boo bëggee traversé dangay ngay fay 1000 francs chacun pour traverser mais loolu dafa cher. loolu loolu waa banlieue ba. Mhm. ak ak ak banlieue bi pauvreté bi ni mu fa duggee noonu. donc loolu da loolu dafa metti loolu mun ñoom mënuñu ko ba pare ñu dëkk ak plage bi. Mhm. léegi ñu ñu ñu gën leen ko yombalal nag defal leen fa Euh, benn VDN boo xam ne benn route boo xam dafay jaar ñu ubbi leen ay rond mhm. ah mu gën a ak plage yi gën a accessible léegi lan lañ bëgg mhm. nañu sécuriser plage yi parce que loolu moo indi phénomène fréquentation de plages parce que nit ñi amatuñ fu ñu jëm parce que nit nag plage dafa war a bokk ci dundinam mhm. parce que nag plage moo ñu wër plage nag mënu laa wër te doo fa dem te doo fa dem voilà doo fa dem féexlu voilà mu doon lu yéeme Modou Fall ma jox la kàddu gi balaa ñuy wéyal laaj rek waaw xanaa rek profito jaajëfal euh, Sylvie comme ci sécurité nañuy waxtaan Abdou Aziz Kandji di commandant gendarmerie bu Kër Massar semaine bi passé jàpp nañu fa cent cinquante personnes mhm. euh, ci trois cent éléments yoo xam ne ñoo fa nekkoon ak moom ci terrain bi démb rek bi ñuy defeere ñenn ñu ci bëree bëree bëri man yëg naa ko mhm. euh, comme nag ñoom bu ñu defee ñaaw ñaawteef wala njuumte ñoom gendarmerie ak police presse bépp dañuy daal seen kaw mhm. bu ñu defee lu rafet presse dañ leen war ne jërë ngeen jëf bu ñu juumoon rek rajo yeeg télé yëpp xëy ci ñoom comme ñëpp nag nee nañ patt ci jëf ju rëy ji Abdou kañ Kandji def man dinaa ko wax Abdou Aziz Kandji jërëjëf li nga nekk réew mi xam nañ ko te Kër Massar soxla nañ ko bon euh, profito rek euh, ñëw ci li ñuy waxtaane mooy euh, mbirum géej géej nag moom daanaka du fekk ji kenn amul benn géej boo xam ne dañ ko war a autoriser wala benn place bu ñu war a autoriser pour nit ña di fa sangu ji amul ñaar laay njëkk a wax ñu ràññee ko ba noppi ci waxtaan bi muy dem plage ak sangu géej du benn nit ki mën na dem plage waaye dem plage rek ñaare rayut nit boo duggee ca ndox ma nag mooy indi lap indi dee dégg naa Ibrahima Fall léegi wax ni 39 personnes faatoo gun nañ te ñi ci gën a néew ay at fukki at la jàpp fukki at ak juróom-ñeent ba ñaar fukki at ñaari nit ñoo ci am ñaar fukki at muy loo xam ne ab tàmbali la ci compte bi waaye euh, xamaguñu fu muy yem ndax école la ngi waaj a tëj te ñu ngi dugg tàngaay. Mhm. léegi nag loolu tey liñ ci liñ ci jot liñ ci jot jàngat njëkk mooy police munu ci dara gendarmerie munu ci dara mairie munu ci dara ñoom Ibrahima Fall ñii munuñu ci dara état munu ci dara kan moo ci mën dara loolu mooy laaj bi. ki ci njëkk mooy waajur yi nit mën naa dund te du dem géej nit mën naa dund te bu demee plage du àgg ca ndox ma ndaqum ginaar bu la ci fay fekkee yemoo ca kis bu fekkente ne da dem plage rek ah ñi dem plage dëpp ñibbi seeni kër faatuwuñ dem plage pilis dugg ci ndox mi nag lu la ca fekk jëlal géej amul bànqaas ma waxaat ko amul benn géej boo xam dañ ko war a autoriser na fii nit ki mën na fee sangu nit warul dugg ci géej di fa sangu boo jekkee ba war a sangoo ndoxu géej am nga droit tànq ndoxu géej dem sa kër sangu boo jekkee ba war a dem ci plage am nga droit dem ci plage yow sa njaboot nga yam rek ca tefes ga xale bi mën na fa fubalee ji pare dem ñibbi. <laughs> dafa dafa bu tàngee am nga ndoxu robinet wala ndoxu pomp sa kër nga am nga toilette nga sangoo fa génn féexlu loolu la fi maam yi bàyyi woon Sylvie bu ñu arriéré tuuti <laughs> géej dafa am nuñ ciy duggee te léegi jaxase melaase bi sànq na nit ñi ba xàmmeetuñ ko bu njëkkoon mag ñi amul kenn ku ci masaan dugg ci géej te du da ngaa géej gi lewetal mooy lan waxuma rey de géej kenn mënu ko rey bu ñu lewetal ci baatu wolof géej dañ koy nuyu laataa ñu ciy dugg géej dañ koy sarax laataa ñu ciy dugg géej dañ koy sarxeel laata ñu ci dugg mag ñi daanañ ci duggee lenn sànni ci jaarob xaalis bu ndaw buñ naan éléance mbaa ñu sànni ci ab dërëm mbaa ñu sànni ci goro mbaa ñu nuyu ko doog dugg. naka la nuyoo géej nag Modou Fall. Eh, ni ñuy nuyoo nit ah? noonu la ñuy nuyoo géej. ak koy jox loxo. Eh, déet du nuyu. jox wala koy salaamaaleykum. nuyu jox loxo nuyu jox loxo du aada. nuy jox loxo. Mhm. du aada lu ñu fi kéréale bu yàggut. Mhm. nuy nit ak nit joxante loxo sax lu ñu fi kéréale bu yàggut du mhm. aada. kon lu ñuy nuyoo gi. Euh, wax naa la ko sànq jaaro alliance wala dërëm wala gura lu ci nekk day nuyu géej. da koy lewetal cest à léegi nag bu ñu demee ba xale yi bàyyi yooyu yëpp nga xëy ñëw ne da ànd ak sa gel loo fi def nga ne da ngay sangu si te yow doo lébu doo marien yow lenn lay booleeg géej mooy jën bi génnee ci géej ñëw ci ndab li nga tiim ko loolu képp moo lay booleeg géej ànd ak jigéen tax nga bëgg a dugg ca géej ga ah bu lab jotee nga lab mbaa boo lëbu tit ndaw sa lab lu tax dangeen a boole ñett da ngeen a boole xamadi yaradiku jëfe maa tey xamadi gi ma nga tàmbalee ca kër ga ba nga tàggoo foo jëm nga ni géej looy wuti géej nga ne damay féexlu ji nga dem féexlu yemoo ca nga sangu nga faatu tàggee nga sa bopp yaa dee ci marché ñàkk ñàkk yar bi mi ngi tàmbalee ci nga romb fi ndoxum robinet bi romb fi ndoxu pomp bi ndoxu teen bi dem naan da ngay sangu ji géej sangu géej daa tax a set da ngay yokku taqaay boo sangoo géej génn tefes bi ngay dox say tànk day taq boo sangoo géej génn géej ku ci sangu booy dox di ñëw yow yaay njëkk a sentir ku la romb moo xam ne ci géej nga sangu ndax xorom siy des ci sa yaram boo ñëwee ci kër gi da ngay sanguwaat kon demuñu géej ngir bëgg sangu pour sangu set déedéet dañuy dem géej pour taxawaalu ji dañuy dem géej pour caaxaani ji dañuy dem géej pour dañoo am jot léegi nag jot googu ñu am ba tax mu ñu mu di leen permettre ñuy dem géej ma nga tàmbalee ca waajur ya moo tax ma ne état mënu ci dara police mënu ci dara gendarmerie mënu ci dara amul kenn ku ci man dara tey yow waajur bi war ngaa yar sa njaboot ba doo am fitu romb la di dem géej yow waajur bi war ngaa yar sa njaboot ba doo am fitu romb la naan day dem plage day lakki jën day patati ci sàcc la ñuy mujj dañuy mujj di sàcc yow waajur bi war ngaa yar sa njaboot boo doo am fitu di la tàggu sax yu ñàkk fayda yooyu yu ñàkk solo yooyu léegi nag bu fekkente ne am nañu matadi gi am manquete gi ba xale bi sañ a dem ci géej gi sangu ñàkk bakkanam comme ni mu ko waxee 39 personnes dee ci te demaguñ ci vacances ak ñeneen ñi war a dee ñu war leen compter ah ku ko jiñ état di nga tooñ état ku ko jiñ police di nga tooñ police ku ko jiñ gendarmerie di nga tooñ gendarmerie weñ gaa nga bañee ca mbàñña xaañ ma mbàñña xaañ ma mooy fan mooy ndey ji ak baay bi ak famille bi ci kër gi ñoo war a yar njaboot gi ba du ñu am fitu dem géej ñoo war a yar njaboot gi ba dañu am fitu romb leen sol kiloot naan dañuy dem dañuy dem plage euh, Sylvie ndakaaru ngay gis xale bu jigéen boo xamante ne si tubéy bi mu war a fanaanoo moom lay sol génn gis xale bu góor boo xamante ni si kiloot bi mu war a fanaanoo moom lay sol génn nga laaj leen fu ngeen jëm ñu jàppantey loxo fu ngeen jëm ñu ni la géej amuñu fenn fuñ la wax waaye yéen ñaar fu ngeen jëm ñu ni la géej lu ñuy lan nañuy def ca ndox ma caaxaan yaa xayti kooku ñu ca dee kan nga ko war a ji yow mi leen bàyyi ñu dem géej doon seen waajur nga ñàkk leen a yar moo xam muy ndey ji moo xam muy baay bi moo xam ñu tàggu la moo xam ñu bañ laa tàgg waaye ñu am fitu rek dem géej buñ fa faatoo yaa leen rey boo ko jiñee état di nga tooñ état boo ko jiñee police di nga tooñ police boo ko jiñee gendarmerie di nga tooñ gendarmerie fi may daan le mooy amu ci benn place boo xam ne dañ ko daganal ci géej na place bi war nañ fi sangu sam fi drapeau bu wala fii bu verte wala amul fenn benn place boo xam ne <laughs> nit war na ci sangu ci biir géej amut ndax géej amul banqaas géej fekk jiwul kenn géej du géeju benn nit sàkkuñu ko ngir nit di ci dugg di sangu di génn géej dañ koo sàkk ngir dafa am ay secret yu ci nekk géej dañ koo sàkk ngir doomu aadama yi mënuñu dund sans ndox mi géej dañ koo sàkk ngir dafa bari lu nit di dundee loo xam ne ci biir géej lay nekk waaye nag sàkkuñu ko na nit ñi dem leen sangu ji ca biir géej déedéet bu doon looloo robine du am bu doon looloo teen du am bu doon looloo pompe du am bu doon looloo ku xëy rek boo waree sangu da ngay jubali directement ci géej gi ñëw man de bu may sangu du ma sangoo ci géej ci robinet laay sangu foofu laay teg sama baaraam bu ñu ku ko déglu <laughs> neex nga sangu ji non mais boo en euh, xalaatam rek la wax xalaatam la rek la wax parce que boo en fait am na ñuy xalaat sax nu gën a garaaw euh, moom ni muy waxee parce que am na ñu xalaat sax ne dañ fa war a def mur yoo xam ne comme mur prison yi tëj ko def ko maanaam fii ba Saint-Louis nit ñi kenn am mënutu sax doo sax gisati géej. Ah, mais am na ñoo xam ne aussi dañ ne nañ fa wàccee armée xam nga pour pour pour ñu aar euh, pour ñu tere daal nit ñi ñu wàcc ci plage bi mais bon man li ma ciy wax si loolu euh, mu ngi mu ngi indexé les parents. Mhm. ak les autorités. Mhm. mais ku nekk am na si part de responsabilité. te gis nga responsabilité bi ci gën a mag xam mooy ban mooy responsabilité état voilà parce que état moom la ñu teg euh, ci réew mi. pour muy aar kaaraange képp koo xam ne dem nga ci wàllu public xam nga boo nekkee sa kër état du du fa mën a dugg pour di la xool. Mm-hmm. déedéet mais sànq yaa ngi ci mbedd bi ak fu mu mënti doon muy plage muy feneen. donc moom bi public moom daf lay aar. donc loolu moom seen responsabilité moo ci gën a mag te ma koy wax benn affaire xale bi parents yi dañuy sonn de ñu ngi leen di ñu ngi ñu ngi def lu ñu mën. Mm-hmm. dañuy làq. voilà mais xale yi léegi ay tubaab lañ grand. ay tubaab lañ léegi euh, plage dafa bokk ci ñoom gis nga été lii liy wàcc si nit si plage yi kenn xamul ni mu toll mhm. kenn xamul ni mu toll maanaam bu ñu koy natt daal dañ naan des centaines des centaines de milliers de personnes ñoo xam ne ñoom ñooy fréquenter le plages mhm. effectivement comme bu bu timis jotee ni ni ginaar di xalaatee ngunoom mhm. bu été jotee noonu la ñuy xalaatee géej léegi nag ñun li suñu rôle maanaam li suñu rôle bu parent bi teree ñoom ñu bañ. Mhm. parce que parent day tere ñoom ñu bañ. Mhm. parce que am na ku lab fan yi ñu génn. parent tere ñu bañ da koy encouragé. déedéet déedéet déedéet dama ne bu parent teree ñu bañ ñun ñoo leen di xaar. Mhm. pour assurer seen kaaraange. parce que ñun ñooy ñun sécurité publique la ñuy def. dëgg la maanaam tey bu doon ne loolu la kon police. ak gendarmerie kon du reste du ñu du ñu reste suñu sécurité. parce que xale yi dëgër nañ bopp bu dëgër goo dëgër bopp boo xam ne da ngay teg. des textes et des règlements ñu violé ko te police ba léegi mu ngi traqué di di di di di di sanctionné donc parce que loolu mooy seen liggéey donte parents yaa ngi yar nit ñaa ngi jalgati yoon ñoom li ñuy mën a def mooy ñu teg leen ci yoon. lu munul ñàkk voilà lu munul ñàkk la sécurité munul ñàkk ci dëkk bu bu parent bi ne bul dem ñoom ñu dem bu ñëwee fa la ñuy fekk. Mhm. ñun ñoo teg foo xam ne. Mhm. accident yooyu yooyu ñu ci xalaat sax du ci am. Mhm. te te plage dafa bokk léegi suñu dund. effectivement parce que am na koo xam day feebar war a dem ci ci ñu koy digal muy dem ci côté géej. am na waa géej. léegi nag non géej sax laay wax. dugul ci ndox mi non am na ñoo xam ne ndoxu géej daf leen di faj. Ah, nga tànk yóbbu bëri na xanaa xamoo tey boo boo amoon problème euh, bët dañ naan la demal uti ji ndoxu géej. wala nga dem tey soo su duggee nga xool si. moom boobu mooy gën a gaaw faj bi donc dafa yàlla def ko fi pour pour pour ñun ñi si dee saa def ko def pour muy am ay jën ñu koy kii ñu ñu si lekk mais nit ñu ñoo ba bu ñu tàngee ñu sang ñu si sangu. Mhm. mais dañuy war a ar seen kaaraange. dëgg la ah forcément. Mhm. voilà tant daal mes parents yi ñum ñoom daal son nañ vraiment son nañ ci aar parce que am na ku laboon fan yi bi ñu laajee bi ñu bi ñu waxee bi ñu ko annoncé décès bi ne ko sa doom dafa lab moom gëmew ko gëm ko parce que li tax ko mooy. doom ji ñëw na laaj ko xaalis ne ko dafa suñu école dañu am lu ñuy organiser xam nga léegi nag xale bi jaare fa dem géej ak ay xaritam ko loolu parent bi lu mu ci mën mënu ci dara munu ci dara léegi nag tey su ñëwee fekk fa kaaraange lap mën na am day lap mhm. moo tax ñun ñuy inciter état bi à ce que fu nekk foo xam ne xale yi dañ fay fréquenter parce que dañoo dëgër bopp dëgër bopp waxuma la xale sax mais mag yi sax dañoo dëgër bopp fii Sénégal parce que ñun dañu mettre en place des de sécurité ak ay consignes de sécurité ñu duñ ko respecté comme ci tali bi rek tali bi da ngay teg fii ne fii kenn ko dépassé mais yaay gis benn gaan ñëw rek dépassé def ñoonam ba pare def fi accident nga wax li la moo tax nga def xanaa gisoo panneau bi mhm. mu ne ma gis naa mu ne ko gis naa ko mais dama ko dama yàkkamti woon affaire yooyu mhm. loolu moo fi am fépp fépp la nag géej gaag tali baag feneen ak feneen moo ci yam fépp fu public di dajee dina am ñoo xam ne dañuy mettre en place des des consignes de sécurité ñu jalgati ko. dëgg la voilà Ibrahima Fall tey euh, gis nañ cas de noyade nu mu bëree ba gouvernement jël ndogal. Mhm. Euh, nee na euh, tuddaguñu nag waxaguñu yan plage la yoo xam ne euh, plage privée la woon dañ ko privatiser woon mhm. mais jël nañ dogal ni dinañu autoriser yooyu les plages maanaam xale mun nañ fa dem di sangu gratuitement mais dañu interdire baignade bi au delà de dix neuf heures ban est-ce que est-ce que loolu mun na wàññi cas de noyade yi réellement waaw mais bien sûr ñun lool ñun loolu la ñu leen loolu la ñu leen laaj sax d'ailleurs ñun loolu dañ leen laaj dañ leen wax ne leen nañu nañu may nit ñi ñu ñu dem sangu ñu leen di aar ñun loolu muñ ci gën a intéressé nañ leen di aar ñun loolu mën nañ ko assurer parce que ñun loolu mooy suñu liggéey gis nga ni nga demee si hôpital bi gis fa médecin bi nga dem ci euh, tribunal ba gis fa avocat yeeg yooyu ak ak magistrat yi donc ñun plage bi ñun ñoo koy gérer ñun xam nañ li li nga xam te bu buñ ko defee mën nañoo aar nit ki mu bañ a lapp léegi ñun ñoo demandé le gouverneur à ce que mu jël ay mesures fermes envoyé inciter aussi à, à comment dire jox instruction aussi euh, collectivités territoriales yi su ko defee ñu mën fa envoyé de ay éléments yoo xam ne dañ mën a aar nit ñi ba lab du am. Mhm. mais tant que defuñu ko nit lab yi dafay continuer. Mhm. voilà donc ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi leen di saluer bu baax ñu ngi ñu ngi saluer euh, initiative boobu bu baax parce que ñun loolu la ñu bëggoon loolu la ñuy xeex tamit ay ati at ak nii parce que nee nañ leen tant que ñu ngi considérer ces plages là des plages interdites kenn waru a dem kenn waru fa mën a sangu te nit ñaa ngi fay dem di dee léegi nag nañ fa teg kaaraange. léegi lan la ñu mën a def cest à booy tere benn affaire booy tere benn affaire da fa soit da ngay def loo xam ne kooku du mun a dugg mais xale yi xam nañ ni ku nekk ku nekk fii xam na ne xale bu duggee fenn lu ko neex lay def. Mhm. voilà parce que sori na këram sori na ki ka naan toogal léegi su fa fekkulee tamit ku naan ko toogal bul dugg fii bul def nii kooku day def lu ko neex xale xale xamul accident xamul lan moo koy lan moo koy euh, xale dafay exposé tout le temps même ci kër yi. Euh, euh, si danger wu accident. amul lu koy amul xamul lu koy gaañ. xamul lu koy gaañ léegi nag su ñëwee mu leer na leen fii xale bu fi demee am na loo xam ne bu ko defee da koy gaañ léegi utal ay nit nga envoyé leen foofu ñu aar ñu ñu ñu aar leen ci loolu. voilà ñun loolu lañ leen wax nee nañ leen dañu comme ça fait des années et des années ñun ànd nañ ci interdiction parce que ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey am na plage yoo xam ne ñu ngi fa. si Dakar prépositionné nañu vingt six plages yoo xam ne ay ménageurs sauveteurs ak ay sapeurs pompiers ñoo fa nekk. sapeurs pompiers dëggal ménageur foo gis am na fa ay ay sapeurs yu nekk si côté yi. Mm-hmm. donc am na renfort boo xam ne. vraiment je remercie le le colonel Ange Michel Diatta euh, du sous-groupement numéro un. Mm-hmm. envoyé na ñëpp euh, euh, prépositionné ne si si vingt six plage yëpp donc lundi bi ñu génn sapeurs pompiers dem nañ fépp si si plage yoo xam ne dañ ko autorisé à la baignade. Mm-hmm. donc di jàppale ménagères yi mais léegi suñ suñ suñ defee euh, loolu dispositif bi ñu def dakaar donc bu ñu ko defee ci yeneen yeneen plage yi mais kon jàmm danaan ñooy kon du am noyade parce que plage yi yi sapeur pompier nekk ak ménagères yi nekk amul benn jafe-jafe nit ñi dañuy sa te te te li nga li nga wax sànq ne euh, préf euh, gouverneur jël na ko comme décision de ne au la de 19 heures kenn waratul sangu c'est très normal. c'est trop xam nga lan la ñuy demandé xam nga lan la ñuy demandé parce que ñun. ñun suñu heure de neuf huit heures la ba dix neuf heures. ngeen di pointé. wala ñuy pointé léegi nag ñun dañuy wàcc ñun bu ñu wàccee xam nga lan la lan la autorité bi war a def dafa war a envoyé gendarmerie ak police kenn warutul nekkati ci plage heure yooyu ñun yàgg nañ ko yuuxu parce que euh, am na bilan yu ñu yu ñu amoon bilan yi da ngay ñëw ñu ne la kii xam nga ban heure la làpp huit ci guddi huit kenn moo koy sangu ci géej neuf heures vingt deux heures am na ku laboon sax trois heures du matin. heure xale yi di voilà léegi nag loolu loolu ménager munu ci dara loolu autorité bi moo war a jël ay mesures fermes ne arrêté dañu génne arrêté ne ne ku ñu fekk ci plage bi au-delà de 19 heures dinañ la jàpp dinañ la teg ci yoon dinañ la teg ay daan yu méttee métti parce que sénégalais aussi loolu rek la xam daan moom boo ko tegee dootu ko defati mhm. mais tant que loolu euh, for de défense et de sécurité nekkuñu ci plage yi heure yooyu ménager nekkuñu ci ah nit ñi dañuy dañu ko ne dem ci plage yi. Mm-hmm. ñun ñu ngi rafetlu vraiment vraiment euh, gouverneur bi donc décision boobu mu jël mesure boobu plutôt mu jël. Mm-hmm. Euh, sécuriser les plages de neuf de neuf de huit heures à dix neuf heures mais au delà de dix neuf heures aussi parce que force de défense et de sécurité ñoo war a jël relève bi maanaam maître bu ñu wàccee donc force de défense dañu war a ñëw interdire waxuma la baignade bi mais plage sax dañ ko war a interdire boobu. te loolu ñun ñun loolu lañu mës a demander état. dañ ko war a interdire heure boobu parce que li mooy li moo doon wax sànq nit ki mën na ne damay dem lekk-lakk jën foofu si plage bi xam nga mu la léegi dem dugg si ndox mi bu duggee si ndox mi kan moo koy sauver ki lay war a sauver ñibbi na depuis sept heures donc loolu danger la ñun fépp lépp loo xam ne danger la ci def nañ ko mémorandum bind nañ ko envoyé nañ ko à qui de droit fu nekk envoyé nañ ko collectivité territoriale yi gouvernance am na ñëpp envoyé nañ leen ñun teel nañu bu été avant été di ñëw dañu teel a alerté les les les autorités. pour ñu teel a jël seen mesure gis nga avant avant kii bi di am ñun bettuñu loolu noyaat bettuñu parce que ñun dañuy teel a jóg alerter autorité mhm. def nañ benn conférence de presse bu mag. Mhm. place BCEAO parce que li tax moo dañoo sentir ne foofu noonu zone yooyu day gën a day nit ñi dañ fay gën a bari léegi bu ñu baree noonu si plage. di sangu kenn sécurisé la xale yi di gën a mais bari na au niveau de la banlieue banlieue booy seet léegi fréquentation mu ëpp fii. boo demee boo jëlee le cas de Rufisque tane na parce que ay lébu ñoo fa dëkk au moins ñoom sax boo amee ay ay ay noyade ñoom dañu intervenir boo demee boo jëlee l' exemple de Mbao ay lébu ñoo fa dëkk village traditionnel lébu la soo suñ fa labee. plage yooyu yëpp est ce que c' est autorisé. c' est des plages à la baignade mais am na am na plage yoo xam dañ ko tere foofu parce que am na plage yu polluées am na plage yoo xam dafay représenter des des dangers mais Rufisque am na ay plage autorisées am na ay plage autorisées Thiaroye sur Mer la même tane. fréquentation bi dafa bëri parce que gis nga village traditionnel léegi cité nouvelle yi ñoo ko wër maanaam ñii lab sax duñ dëkk si dëkk ba tey booy xool euh, ñi lab euh, Malika ñoom ñaar defe naa ñoo fa dëkk si Malika ñoo ñoo dëkk Malika mais ay Kër Massar la ñuy jógee ay ay ay ay benn baraak. Mhm. yëmbal yooyu la ñuy jógee. Mhm. voilà donc loolu moom moom mooy wax bi mooy en fait dafay dem ba ñi nga xam ne sax ñoo fa dëkkul ñoo koy gën a fréquenté. Mhm. parce que effectivement phénomène fréquentation de plage bi nit ñi amatuñ fu ñu dem plage la ñuy mujjee dem léegi bu ñu fa ñëwee nañ fa fekk kaaraange ñu ñu leen di sécuriser du matin au soir su ko defee bu ñu jógee bu bu ñibbee jàmm nañ ñooy mais tant que fekkuñu fa sécurité je pense que lab day lab day am. Mm-hmm. waaw naka ngeen di liggéeyee ak sapeur pompier yi. voilà non suñu liggéey nag ak sapeur pompier yi yàgg na voilà parce que sapeur pompier yi donc ñoom ñoom ñu xarañ lañ dañu dafa am euh, ñu ñu ooyee des spécialistes en intervention subaquatique bu nekk seen biir. muy les grappistes waa grab lañ lañ leen di woowee ñooñu noonu ñoom dañuy yëngul rek du ñu fay lakk du ñu dem ci accident circulation yi ak yu demee noonu ñoom li ñuy def moom mooy euh, képp koo xam ne euh, euh, fépp foo xam ne plage autorisée la à ñoom dañ fay dem prépositionné fa seen seen éléments yi donc ànd seek ak maîtres yi parce que daanaka am na formation boo xam ne ñoo ko bokk ñoom c'est des maîtres ay maîtres-nageurs lañ mais ay plongeurs lañ en même temps. Mhm. voilà donc mën ñoom mën nañoo def ñaari liggéey yëpp mën nañoo def liggéeyu maître-nageur mais aussi mën nañu def liggéeyu plongée maanaam nit ki su demee ba nga xam ne kenn gisu ko xam nga li ma la donc ñoom ñooy dem ñu am nañ ay ay tenue yoo xam mhm. bu ñu ko solee. ak ay ay yoo xam bu ñu ko solee ak mooy yëre marin yi donc ñoom mën nañu dem euh, wër nit kooku xam nga ñu xarañ lañ vraiment. ñu ngi rafetlu seen collaboration bu baax a baax parce que ça des années. Mhm. ñu ngi associé ak euh, euh, les collectivités territoriales ak la direction de la protection civile bi nga xam ne moo nekk au niveau de ministère de l'intérieur donc ñu leen di envoyé sur le terrain donc mu doon liggéey bu am solo boo xam ne ñun ñu ngi koy def euh, defandoo ensemble te day renforce sax suñu dispositif ñu loolu moo moo ñu ci gën a moo ñu ci gën a neex daal parce que dispositif bi ba léegi dafa doyul. man loolu dama koy dama koy wax ba léegi ne autorité yi pour ñu yokk kaaraange gi maintenant yéen nañ leen yokk parce que lim bu néew la. Mm-hmm. voilà donc tey euh, am na ñoo xam ne am nañu ay lijaa lijaasa mais ba léegi envoyé guñ leen sur le terrain te loolu ñun dañu dañu bëgg. ñu envoyé foofu laa bëggoon ñëw sax est-ce que euh, li ñuy teg ci ay maîtres ci plage yi ce que doy na pour protéger xale yi. waaw xam nga li tax doyul parce que am na benn jamono boo xam ne dama doon wax naan lim bi doy na mais léegi lim bi day gën a jéggi dayoo. li mu fréquentation des plages parce que chaque année da ngay gis ne plage yaa ngi gën a yokk fréquentation bi yaa ngi gën a yokk léegi nag bu fekkee ne euh, nit ñi dañoo gën a bari da nga yokk li mu ñi ñi nga xam ne ñoo leen ñoo leen di aar yokk aussi matériel bi am nañu matériel la ville de Dakar euh, def na effort ak maa ngi remercier bu baax madame Wardini bi nga xam ne moom mooy maire de Dakar mhm. moom envoyé na euh, matériel di ñu defaral sax poste de secours moderne yoo xam ne dafay am bureau am cuisine am lépp am infirmerie foo xam ne nit ki su gaañoo si plage bi sax mën nga ko faj xam nga donc loolu liggéey loolu am solo la parce que ki ki euh, ñun euh, suñu liggéey dafay laaj ay jumtukaay te jumtukaay yooyu madame madame Wardini mu ngi def le maximum ménagères léegi am nañ ay tenues bu njëkkoon ménagères yi kenn du leen xàmmee parce que doon doon sol tenue mais léegi dañu am ay tenues boo demee ci plage rek immédiatement li ngay njëkk gis mooy nga gis ménagère bi ak sifflet bi ak ay dispositif flottant de sécurité yi nga xam ne dañ koy takk pour léegi noo lab bu amee ñoom ñu mën a dem intervenir donc mhm. yooyu yëpp ñu ngi ciy gërëm autorité yi euh, ville de yi bu baax. Mhm. voilà. am na solo euh, Modou Fall. Mhm. Euh, Sylvie. sama doom baay bi damaa dégg ci sama doom baay bi Ibrahima Fall damaa dégg ci moom ay kàddu yoo xam ni man erreur laa ko jàppee bu mag a mag a mag <laughs> dégg naa mu ne xale yi léegi ay tubaab lañu benn. ay tubaab lañu. ñaareel bi. mu ne seen papa yi dañ leen tere maanaam seen parents yi ñu lànk dem géej far force bu ñëwee géej fekk leen fa ñoom ñu war leen a aar. Mhm. waaye ki papaam mag yaayam mënut a aar ndax ki dajal ci mbedd bi dana ko mën a aar waay loolu ab laaj la euh, tubaab yooyu nga wax moo leen yóbbee tooxi doone gii mhm. di am. Mhm. ku lekk lekku jàmbur gàddu jàngorob jàmbur. wala ko àcc ànd. ku lekk lekku jàmbur. Mhm. yore feebaru jàmbur. li nga bëgg a wax mooy ku wàcc ku wàcc sab ànd. du mhm. wàcc sa ànd ku wàcc sab ànd ànd boo dem fekk ca ña ko moom ñu koy ànd. Mhm. gis nga xale bi papaam tiit ci bi ngeen ko ko tàggee mu ne daf maa laaj xaalis ne day dem école dem géej dee. papa jaa ko yarut ak ndey ji man maa ko wax. sa doom boo ko yaree dootu la ragal da rus. nit ki la rus du la fen nit ku du def ci sa ginnaaw loo xam ne néexu la nit ku la du def mukk loo xam ne danga ko koy tere bu la gisee ak bu la gisut papa jaa ko yarut yëddu ko téttewu ko da koy xont rek dëkkee di ko xont di ko yafal yar ak yafal du benn nit ñi léegi yaratuñu dañuy yafal hmm. <laughs> sa doom boo ko yaree du am fitu mukk ñëw di la fen naan la damay dem école nga jox ko weccet mu dem géej defalul toog ñu tàgge la ko nga ni woon école ba la ma tàggu fii la ma laaj xaalis dem école fekk géej la dem da nga koo yarut da nga koo yafal ba mu ni léng amul la benn njariñ <laughs> ñooñu nga ne ay tubaab lañ ba tax ñooy daje ci tefes gi mm-hmm. waaye yaa xayte ay tubaab lañu di def yëfi tubaab bàyyi fi suñu aada ak suñu cosaan mais tubaab yi deewuñu ci géej lu tax bu ñëwee ci géej gi yar ah, ba ñu leen tubaab day dee ci géej waaw ma ci bëgg a jox bu ñëwee ci géej gi yar bi ñu leen jox ci kër gi moom la ñuy pratiquer ci géej gi mm-hmm. il faut nga séparer ñaar muy ñëw tefes ak dugg ci ndox mi sangu médecin bi mën na laa yebal nga dem plage dund beneen air médecin bi mën na laa yebal nga jël ndoxu géej xool ci say bët comme ni nga ko waxee waaye néew la demal dugg ca géej ga mm-hmm. médecin du ne kenn demal dugg ca géej ga danaa la jëlal ndoxu géej xool pour say bët tane demal nga wut ndoxu géej nga sangoo demal nga wut ndoxu géej nga denc demal nga wut ndoxu géej nangam mais man gisaguma médecin bu naan kenn demal nga sangu ji ci géej mm-hmm. demal nga dugg ci géej sangu loolu mooy demal dee médecin bu la ko wax nee ko demuma <laughs> médecin dalaa war ne demal nga wuti ndoxu géej ndoxu géej mën nga yóbbaale sa siwo wala sa gurtu nga wut ndoxu géej mm. boo ñëwee sangu boo ñëwee nga sangu am nga foo sangoo <laughs> fi ngay sangoo ndoxu robinet mën nga faa sangoo ndoxu géej boo pare nga sanguwaat beneen ndox bu dee da nga bëgg xool ci ndox mi jëlal sa paan nga dem tànk ndoxu géej nga ñëw xool ci ndox mi pour faj say bët mm-hmm. xale bi nga xam ne nag dañu dafa yaradiku ba papam da koo tere ak yaayam mu ne far force day dem gée mm-hmm. kooku bu demee géej daa war a dee wërta mais nit ku xamadi ba yegg foofu looy dunde looy dund ci société bi quand même boo fi dundee doo am njariñ boo continuer di dund tamit dund gu amul njariñ ngay dund dund gu dee gën léegi nag yéen ñi nga xam ne yéen a ci tefes gi nee ngeen noo da di sauver yéen yéen ñiy sauver xale yi bis bu seen ngeen dee ci géej gi hmm? waaw bis bu yàlla sàkk ngeen dugg di sauver nit ànd ak moom dee hmm. du jeex loolu foo ko déggee bis bu set laa la wax du benn du ñaar bis bu set bu ngeen compter vingt neuf yu dee waaw vingt neuf yooyu seen diis a ngi ci waaw yéen ñi sauvé xale yi léegi nag police ak gendarmerie bi waaye sëriñ bi dugal si débat bi waaye bul génn débat bi ci laa nekk ba tey ba tey ñu ngi ci géej xoolal wuy ma wuy ma yow mii da nga mel ni da nga dëkkul Dakar may ma ma daaneel wala kaw kaw nga may xam nga li ma wax déedéet wala xoolal dama lay wax benn affaire dama lay wax benn affaire am na gis nga booy wax ak askan may ma daaneel da leen di wax ak lu mën a nekk waaw may ma daaneel yaa ngi may dégg yow li ngay wax nii xoola bul mer may ma ma daaneel waaye may ma ma daaneel wuy ma mais li ngay wax booy wax ak askan da ngay wax lu loo xam ne yenu na maanaam may ma ma daaneel yow nit ah, yow yow mënoo mënoo mënoo ñu dem géej su ma daanelee mënu nekk su ma daanelee nga wax li yenu maanaam léegi su ma daanelee nga wax rek li léegi man mënu maa wax yaa ngi mel ni ngaaka buy wax ba tey su ma daanelee da nga jël comme ñoo la éviter man moom du ma yëngatu du ma ah, mer damay tege ci yoon bi rek waaw sooy mer yow yaay mer mais man moom du ma sa mer. non ñun duñ la mere. voilà léegi parce xam ne xamoo. daaneel am rek mu yeggali. su ma daaneel nga jël na ma may rek. mais booy wax askan da ngay wax lu am yenn maanaam. may fa tax a toog may ma ma daaneel. léegi nee nga dañ mën a dégg. léegi nee nga mënumaa wax ba nit ñi duñu dem géej. mais kon kenn mënul wax ba nit ñi duñ dee ci géej gi. waa loolu moom loolu dee moom yàlla moo ko yore. dee moom. lan mooy sabab bi gis nga tey gis tey ñun ñuy sauvé may daaneel may daaneel ñun ñuy sauvé may ma sabab ah, may ma tey ku nar a dee sax ñun mënuñu la ah. voilà attends may may ma damay leeral ba mu leer bala maa daaneel ndax nit ñi ñu dëkk rek ci ay nit di lëndëmal seeni xel ñun xola ñun xam-xam la ñuy wax Ibrahima may ma daaneel quand may ko rek daaneel ndax débat bi man loo wax attan naa ko. waxal mais fexeel ba li may wax nga di ko dégg ko. nit ñi <laughs> il faut ñu leen leeral. dara nga fi waxoon ci yi ñu leen di encouragé ay mën ngaa dem géej sa ngoo fii boo naree dee maa lay sauvé sa ndey ak sa baay bu la teree dem géej mën ngaa ñëw géej ñun nga fay fekk bu ngeen demee géej da di dee ñii mënuñu leen aar il faut que ça soit clair. Euh, beneen bi ci bi nga xamante ni si moo wérte te wóor tam war a leer ci bopp nit ku ne. <laughs> Mhm. mooy police. ak gendarmerie waruñoo am jotug dëkke ci euh, frontières yi nekk fi ni mu ibbeekoo sécurité bi doyul. Mhm. ñu war a mm, nekk ci lijjanti boobu guddeeg bëccëg suba ngoon ku nekk gis nga banlieue bu dakaar ni mu bëree agression. Mhm. ku nekk gis nga ni. moment bi ñu toll tout le temps guddeeg bëccëg suba ngoon nit ñi bu ñu tëddee du ñu nelaw pour lan dëkk bu yëngatu police ak gendarmerie ci yooyu lañ leen soxla waaye soxlawuñ leen ñu dem géej. di fa karkaral xale yu yaradiku yoo xam ne kenn yaru leen ca kër ga ñu ñëw géej di def ay n'importe comment ba war faa dee police gendarmerie dëkkee di leen aar xaaruñu leen ci te bëgguñu ko loolu yoonu état nekku ci beneen bi nga xam ne fi lay daan le mooy état bu amee ay moyens yoo xam ne hmm. daf ko war a génnee hmm. pour di ci aar xale yu yaradiku yiy dem di dee ci géej gi hmm. war a di ko jox ñi nga xam ne nee nañu mën nañoo aar xale yi ba duñu dee di leen wutal ay place yu ñuy sango yu ñu dul na jël moyens yooyu jox ko lébu yi na jël moyens yooyu jox ko nappkat yi ñu yokk seen ay gaal yokk seen sécurité man di wutal nit ñi jën yu ñu dundee moo ëpp rendement fukki junni yoon xale yi nga xam ne ay taxawaalukat nañ bu ñu waree dee ci géej gi nga xam ne yarawuñ leen ca kër ga bu dee jotee nañ leen bàyyi ñu dee <laughs> Ibrahima jël loo wax baax na <laughs> vas-y non non non dama bëggoon wax rek ne bon en xam nga dafa am benn affaire bu am muy catastrophe muy foo xam ne donc ay quinze personnes ñoo décédé loolu tax wax journalistes yi di woote pour bëgg xam lan moo xew yaa may de ak lan mooy mooy tax loolu bañ amati comprendre nga je pense que ñun foofu lañ nekk quoi moom li muy wax nii moom affaire 1922 yooyu lay wax. mu ngoog yaa ngi dégg. yaru maam ay ay ay ay très bien parce que parce que yow yow mënoo fi wax mënoo fi wax ba nit ñi duñ dem géej. voilà mënoo fi wax ba corps maître ñu effacé ko. c'est ça munoo fi wax ba police ak gendarmerie ñoom du ñu gérer la sécurité publique. Mm-hmm. munoo fi wax ba man takk der laa woon ba bala may nekk. mel na waaw taxaw rek taxaw rek taxaw rek man xam naa li nga xam te ne moom la force de défense et sécurité di liggéey au quotidien maanaam saa ñu xëyee. ñu ngi aar askan bi ñu ngi traqué les malfaiteurs effectivement comme ni nga ko waxee ñooñu noonu mhm. waruñu tal effectivement wax naa wax naa ko sànq wax naa ko sànq nee naa mhm. ñoom waru état bi waruñu leen sonal sax di leen envoyé dans les plages parce que plage du ñoom ñoo ko war a gérer parce que ñoom mais man am na benn réunion barke dem rek laa doon réunion ak euh, waa mairie mairie Malika commissaire baa ngi fa woon commissaire bi li ma wax def si kontaan parce que mhm. ñoom amuñu ay nit yuy taxaw foofu guddeeg bëccëg di euh, di di xool ay nit yu sangu ñoom loolu du seen rôle. ku am jotam mm-hmm. voilà donc loolu maintenant sauveteurs yi ñoom ñoo abilité pour def ko. bu ko defee. Mm-hmm. même sama waa ji comme ni mu wax bu fekkee ne si plage bi ngay yam léegi soo labee soo fekkee ne sa xel dafa nekk parce que nit nit moo neexul a natt ni nit kii kii di dem nii wala kii dawal nii. même dali tali bi kii dawal nii xel bi la yore. nit duñ ko dañ koy yar. man ma ci cadre yar man gis nga ku ñu yar ak ku ñu yarul. Mhm. ñëpp laa yamale. Mhm. ñun bu ñu ñëwee dañ leen di aar. ñoom ñëpp la ñuy yamale man lijjantiwuma ku ñu yar ak lu ku ñu mhm. ku yaradiku. yaa ngi dégg gis nga yar boobu nga wax noonu yow yow <laughs> débat la boo xam beneen débat la. beneen débat parce que yar mën nga ko def nit xam nga yaa ngi tooñ parents yi boobu léegi. laaj ma lu tax nga ma ma wax la loolu. ñenn ci parents yi parce que déedéet taxawal rek taxawal parents yaa ngi def lu maximum. ñenn ci ñoom. di sensibiliser gis nga tey ñenn école yi. gis nga boo demee même au niveau des écoles. am na parents yu deful dara. non am na xoolal xoolal parents yi. am na parents yu am na ñu deful dara bu leen bu xamul tax gis nga coonoy jamono. yenn saa yi sax mooy tax doo tal. yenn warul teree yar sa doom. déedéet te taxawal rek xam na ñoo xam ne ñu ngi saa ñu xëyee ñu ngi xool lu ñuy dugal seen warul tere yar sa doom yaa ngi dégg yërmande boobu vraiment waroon na mën a tax nag nga jéggal leen ci ci loolu quoi warul mais jéggale teewul wax dëgg en fait booy xale yi dañu jël li tax mën a tubaab bon parce que man ñun dañ koy seetlu sax ay reed yi ñu jàpp ñun xam nga ñun jàng nañu école ñun suñu parents yi si école bi lañ ñu dugal ñun ci daara ji lañ génnee voilà daara man def naa daara def naa école voilà léegi euh, dafa am lu ma lu may woowee tubaab comportement la comportement la. parce que ah, yenn saa yi ñun ñu nekk si plage dañ leen di tere sax yenn solin yi. Mhm. mais dañ naan par force dañ koy parce que plage dafa am lu muy laaj. yaa ngi dégg man comprendre naa waxee mais am na am na foo xam ne nga dérapé. man kaw kaw <laughs> léegi. léegi léegi ñun dañ ñun am na éducation boo xam ne dañ koy defaale au niveau des plage moom loolu la xamul. maanaam mais am na yoo xam ne doo ko sol suñu kanam ñu koy bàyyi ñu lay bàyyi ngay dugg si ndox amul no parce que dafa am des habits indécents yoo xam ne am na maillot de bain heureusement sax léegi changé nañ colin. silip silip waaw taxaw rek. silip non loolu silip la ñuy sol ci seen kanam silip taxaw rek mais léegi dañ ko ah, changé maa ngi leen si sant bu baax ci loolu dañ ko changé léegi léegi plage boo dem léegi xa léegi ñu ngi commencé comprendre lu bari quoi léegi su fees la ñuy sol comprendre nga ak ak benn eau wala affaire yooyu booy set plage yëpp. te ñun yàgg nañ ci plage yi xam nañ. bu njëkkoon bu njëkkoon fisi yi. góor yi nan la kilote la kilote la voilà léegi nag bu gàtt la comme slip moo tane slip moo tane loolu. nañ nañu auditeurs yi baal ci ci wax ji. mais lépp day leer. sans filtre mais en ci am solo. lu ci am solo mooy ñun euh, ñu ngi xool association la lañ boo xam ne donc at dañu ànd ak ay partenaires yoo xam ñu ngi liggéey ci cadre bi lab bañ a amati ci dëkk bi ñun loolu loolu lab moom mënuñ luñ mënuñ mënul dégg ñu yar la ak ñu ñàkk la yar yëpp donc boo ñëwee ci plage dañ la war a encadrer donc dañ la war dañu war a délimiter des zones de baignade ba nga xam ne boo ñëwee di nga mën a ñibbi ci ak bakkan ak jàmm ak salaam. yan comportement ngeen di tere ci plage yi. bëri na comportement yu ñuy tere parce que plage bu nekk. dafa am dafa am lu ñuy woowee recommandation ak ay interdiction bokk na ci euh, li ñuy recommander nit ñi bu ñu ñëwee ñu respecter consignes de sécurité yi nga xam ne maintenant les dañ ko mettre en place parce que daf bëri. am na comme euh, bon am na ay sangu sangu sangu sangu yoo xam ne dañ koy tere. am na am na yëre yoo xam ne dañ am na euh, façon yëre yoo xam ne dañ koy tere. voilà bari na bari na ba buñ koy lim sangu lañ yéen a ngi tere sangu góor ak ñi di isolé wu de trop non les baignades isolé mu ngi nii waaw mu ngi nii dafa am recommandation si voilà nga ñëw ci recommandation voilà recommandation yi mooy dañuy tere dañuy tere koo xam ne dafay dem ñu ñu délimiter zone de baignade moom mu dem di sangu seul maanaam les baignades isolées mhm. voilà loolu dañ koy tere dañuy tere aussi euh, ngay fréquenter plage boo xam ne amul sécurité xam nga loolu tamit bokk na ci tere yi mhm. voilà léegi nag après beneen bi mooy tere nañ koo xam ne dafa añee këram ba suur ñëw rek ne cappax ci ndox mi loolu tamit dañ koy tere parce que dafa am ay danger yu ci am mm. normalement danga war a toog lu mat ñaari waxtu ba ñetti waxtu voilà bala ngay dugg ci ndox mi loolu sa kër sax dañ lay tere voilà léegi nag beneen bi am bi am solo nag dëgg dëgg dëgg moom mooy bii bi moo gën a moom mooy gën a indi accident yi mooy koo xam ne dafa entraîné ba tàng xam nga tout le temps plage bi yaa ngi gis ñuy daw léegi nag dañuy tàng mbër yeeg futbalkat yeeg yu demee noonu donc dañuy entraîné ba tàng rek ñëw rek song ne ne dama tàng sa yaram bi di saxaar. nga dugg nga ne paccax si ndox mi loolu mën nga am arrêt cardiaque. si saa si nga nga pare ñu naan dafa lab fekk na du lab. Hmm. leneen la parce que si y a une différence de température entre le le corps et l'eau maanaam yaram bi température bi ci nekk. ak bi nga xam ne moom moom la moom nga fekk ndox mi am ko dafa wuute léegi nag loolu mën na indi choc choc thermique ou traumatique. léegi nag mën nga am arrêt cardiaque nga yam fa parce que gis nañ ci ay cas yu bari bari bari bari voilà léegi nag am na plongeon yoo xam ne xale yi dañ koy faral di ñu lay tóoj ngay plongé nii sa loos mën na cee damm te loos amul yàq voilà donc bu dammee rek sa fini parce que li nga xam ne moom mooy yëngatu sa yaram yëpp ak sa cerveau di dem si cerveau yëpp foofu la jaar léegi moom foofu moom bu bu dammee rek pare nga ci mhm. am nañ ay cas gis nañ aussi ay cas yu demee noonu voilà léegi yeneen yi mooy xale yi nga xam ne dañuy jël ay bouteilles bouteilles yi di kireen yi di litre yi di dem ci géej gi di si tëdd maanaam gis nga bu li olof di kii lébu yi di wax sambraax maanaam si le vent souffle de la terre vers la mer maanaam ngelaw buy buy buy buy euh, yóbbu ci kaw ci kaw dëkk bi di jëm ci biir géej loolu bu la fa fekkee. da koy yóbbu ni mu la ni muy yóbbu <laughs> noonu la lay la lay yóbbu voilà léegi nag soo ko bàyyee doo amati pied. da ngay lab loolu tamit dañ koy tere loolu moom nit du ñu romb sax ak loolu parce que gis nga boo ñuy boo demoon plage tey bu tey yi jàll lañ ko def tellement que booy dañuy jóge ay côté Grand fi yeeg fu nekk la ñuy jóge gàddu seen butéel parce que ñoom yaakaar nañ ne loolu mooy sangu mooy da ngay ñëw nga tëdd si fenn mel ni ku yor sa gaal xam nga mm-hmm. donc tëdd si donc yooyu yëpp ay kii la yoo xam ne dañ koy tere te aussi ñuy respecter les heures de baignade maanaam 9 la ba 19 heures au delà de 19 heures kenn warul sangu te damay ñaan encore une fois le ministre de l' intérieur et de la sécurité publique mu jóg ci loolu bu gaaw a gaaw plage kenn wartu fa nekk bu sept heures parce que sinon mën nañ indi cas de noyade parce que kuy sangu guddi soo labee doo gis ku la sauver parce que cas yi amoon daaw yëpp yu bëri heure yooyu heure yooyu la lab te loolu danger la ci ñun. ñi nga xam ne kon décision gouvernement boobu yàgg na fi nit ñee ko respecté wul. dañ ko respecté wul moom laay wax sa waay mais comprendre cest à ñun. dañuy teg li nga xam te ne moom lañ la euh, digal sa kër nga bañ li nga bëgg ma comprendre voilà ma ko comprendre loolu sangu ji góoj force kii la léegi daal voilà léegi nañu suivre daal consigne de sécurité yi parce que bari na bari na lii diis la rek mais bari na ay consigne de sécurité yoo xam ne mhm. donc nit lañ dañ ko respecté mais li ci gën a am solo mooy bu ñëwee ci plage li nga xam ne dañ ko mettre en place mooy dispositif yi muy fi ñu leen yamale ak yu demee noonu dañ koy respecté bu ko defee ñu mën a sangu ci jàmm bu ko defee jàmm na ñooy ñuy owaat autorité yi aussi fi nga xam ne amagul kaaraange nañ fa teg kaaraange donc ñëpp ñëpp am jàmm d'accord merci Ibrahima bàyyi la nga joxe sa mot de la fin waaw mot de la bi mooy maa ngi leen di remercier bu baax di remercier sama naataango ah, donc voilà doomu baay donc di remercier aussi seen auditeur ak euh, suñu techniciens yu xarañ yi mhm. nga xam ne bu ñu mënee wax ba ñu dégg ko ñoom ñoo ñoo tax voilà donc vraiment di la remercier bu baax quoi mhm. parce que lii daf ñuy may mhm. opportunité boo xam ne dañuy wax askan bi donc ñu mën a comprendre yoo xam ne mosuñu ko dégg ak yu demee noonu. Mhm. ngeen jëf. merci yóbbu tàggatoo. li may tàggatoo rek mooy di remercier <laughs> Ibrahima Fall tey wax ni gone yi nag bu bu bu mu tax mukk ngeen dem géej géej du sangukaay <laughs> ku nekk na nga toog sa kër sangoo fa géej amul bànqaas. te wóor di képp la def kenn mënu faa aar kenn. ku dul yàlla suñu borom beneen bi ci des rek. may nuyu sëñ laat say Mbàkke eh, fële ca Touba di nuyu Mamadou Joxaane ca ministre de l'intérieur di ñaan nag tey Portugal dóor France 6-0 yàlla na ko yàlla def jërë ngeen merci Modou Fall merci Ibrahima Fall moom lañ dalaloon ganu euh, sans filtre moo di président association des maîtres nageurs et sauveteurs du Sénégal di gërëm Adama ci cabine technique bi di gërëm mboolem déglukat euh, ñu leen di jox dig daje mercredi bi di ñëw même heure même fréquence ak euh, beneen thème ak beneen invité.